asalaamaaleykum maa ngi tudd Linguère Fall ñu ma xam ci Amsa euh, maa ngi bokk acteur social. tey lan ngeen mooy seen dem prison. Euh, tey dinañu dem euh, prison bu jigéen ñi bu nekk Rufisque dinañ dem aussi bi nekk Liberté sis ok ok mooy biu seen distribution waaw jàppalante rek xam nga jàppalante moom wartu na ñépp si. ludul ko koor na bu nekké ko lo rek la. euh yenn nak ñan la acteur yi la wala dafa am ay yeneen bonne volonté yu nekk ci ginaaw di def. waaw euh, acteur yi la ak euh, keneen ku ci bëgg japp rek parce que souvent da ngay gis ne dañuy publier numéro ne ku ci bëgg japp na ci japp té nit yu baax yaangi ci japp ñun aussi ñi ngi ci. ok d'après euh 8 mars bi gis nañu encore ngeen préparer tay ndax tay campagnat rek lay yam ak ak ak Rufisque wala fa am yeneen prison aussi yeneen ciblé. waaw bëgg nañ dem ci fépp foo xam ne jigéen mi ngi fa ci prison yëpp yi nekk Sénégal. Euh, bu dul prison est-ce que da ngeen am tamit yenn idée yoo xam ne bokkul ak prison dem ci hôpital yi wala dem si ñi nga xamante ne mooy euh, euh, internat yi wala ñi nga xamante ne mooy ay daara ndax da ngeen am idée aussi wala ay aussi tamit dégg naa foog naa si wéy bu da ngeen am idée pour dem di tabax ay poste de santé defaraat ay poste de santé affaire yooyu noonu. waaw lépp a ngi ci biir. Hmm. lépp a ngi ci biir dinañ bëgg nañu dem fépp. fépp fukk soxla ndimbal nekk bëgg nañ fa dem ñu ngi ñaan yàlla jàppale ñu ci ba ñu mën a mottali suñu ay yéene.